إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وخليفنا ومصطفانا محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون إخوة الإيمان الخطبة عن تربية الأولاد mbokk yi dina am sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan jéggal ñu suñu rëcc ci bàkkaar di ko ñaan mu jaral mu gindi mu teg ci yoonu siraatal mustaqim yoon bi nga xam ne képp ku mu baaxal moom yàlla teg la ci yoon boobu xel yàlla ci yàlla boole waaye képp ku mu seetaan ci maanu tey ba nga jàpp kooku lay yoon amul kenn nu ko la mën a jubalaat wala iyaasu billah ñu ngi seeti ci buur boobu amul kenn ku la jaamu ci dëkk bi moom ñeer mu koy bokkaale kenn moom yàlla subhanahu wa taala nga jur kenn kenn juru ko moom bi nekk naw ci kenn ñu ngi seeti ci suñu sama Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaaman la ndawam la tànnifam la xaritam la yàlla yàlla fayal ñu moom ak saxaaba ak képp ku topp ci moom dina ko tal ci lépp guddee guddee léegi awoon na mbokk yi dañ tax suñu bopp ñu leen dégg ragal yàlla subhanahu wa taala ak topp ko ni ñu ko déggee ci aaya bi ñu wax nii ay yéen gaa yi gëm na ngeen ma ragal dëgg dëgg ragal rëkk bu leen faatu loolu da ngeen wommatu loolu jëliñ ci mbokk yi suñu duggee tey ñu nekk ci yéen amal ci tarbiyatu awlaad mu yaru bu bëri ginnaaw bi ñu xam leen ni lii di doon dara la boo xamante ni yàlla moo koy jagleel ku ko neex jàll moo koy jox ñu xañ ko ci des jamono bi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay jox jamono xamal ni kam la jox mi ngi jubbu ci njub moom la alayhi salaatu wasalaam wax ni maa min mawludin illa yuladu ala alfitra fa abwaa yuhawwidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajjisaanihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kada boobu di doon amul kenn ku ko yàlla di jox lu dul la koy jox ci fitra la la ko joxe ci njub fitra bu ñu koy firi moom mooy li nga xamante ni doomu aadama lu bokk la ci moom ba bu koy def cër yëpp ay ñëw loolu fi tabax li nga xamante ni da nga koy def te say cër nangu loolu bokkul ci yow ala sabili misaal soo jëloon sa téléphone portable wala adawaat bu mu doon fekk yaakaar nga teg ko nii di ko jël soo koy jël amul lan ngay frustré wu ci jël bi nga koy jël ndax li ngay jël dafa bokk ci yow yaakaar naa waaye bu dee da nga fekk ku teg téléphone am lu koo àbb maanaam sàcc boo koy jël sa gis dina soppeeku sa fit dina maas sa lépp day commencé di changer ndaxte la ngay bëgg a def moo bokkul ci yow la nga jël nag te mu bokk ci yow loolu moom mooy fitra yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na la lan lay jox muy njaboot ci fitara lay judd yow koy judd nag yaa koy def mu nekk nasara wala nga def mu nekk yahud wala nga def mu nekk majus moo tax mbokk yi kenn ku ci nekk njaboot bi la yàlla jox war ngaa xam yan responsabilité moo war sa digganteeg sa njaboot loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala muy wax ci alquran mu ni yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara wa quuduha annaas walxijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون borom subhanahu wa taala mu ni ay yéen daa yi gëm na ngeen fegal seen bopp sawara te fegal ko seen njaboot sawara si nga xamante ni lañ koy xamlee mooy ay xeer ak i nit te nekk na fa ay gardien ay malaaka yoo xamante ni yu tar lañ te ñoom du ñu mooy mbugal du ñu mooy ndigal borom bi subhanahu wa taala te leen leen digal ñu def ko la leen yàlla wax def leen muy ndigal rek loolu la ñuy def mbokk yi masuuliye boobu bu ko nit ki xamee ana yan matuwaay la war a jël ngir jël li ko yàlla dégg muy njaboot teg ko ci yoon bi nga xamante ni mooy yoonu jub sabab yi tax ba suñu njaboot bi nekk njaboot boo xamante ni ay njaboot yuy nekk ay royuwaay yuy tegu ci yoon bi nga xamante ni mooy yoonu jub ba ci jëkk mooy nga fexe ba sa njaboot bi nga xamal leen nga miinal leen teg leen fi yàlla wax nga teg leen ko mooy nga mi xamal leen seen borom subhanahu wa taala ci li yàlla dégg leen muy ay farataam nga fexe ko teel a miinal bokk na ci nusuus yi nga xamante ni dafay jàngale di yonente bi alayhi salatu wasalaam doon yaree njabootam xadis bi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalaam ngi wax ni ma min abdin istaraahu llahu raiyatan falam yaxudha bi nasihatin illa lam yajid raihata aljanna mu ni amul benn responsable mooy borom kër bu yor njaboot boo xamante ne dañ na di diisoo ak njabootam di waxtaan ak ñoom di leen xamal seeni warteef amul benn borom kër buy bàyyi loolu lu dul di bokk de yàlla mu koy soreel lii di xefu aljanna ci beneen riwaaya mu ne illa harrama allahu alayhi aljanna lu dul kooku yàlla de dina ko soreel aljanna wal iyaazu billah njaboot mbokk yi dafa nekk trésor boo xamante ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam mi ngi wax ni ida maata ibnu aadama inqataa amalahu illa bi thalaatha mu ne doomu aadama bi bu faatoo lépp lu mu daan defal boppam loolu de dagg la mënatul julli dootoo mënati woor dootoo mën a di saraxe dootoo mën a di dem ak màkka dootoo mën a dem ci jàkka ja dootoo mën a jël si alquran di ko jàng la nga doon defal sa bopp lépp dootoo ko mën a def mu ne yooyu noonu nag bu daggee am na luy continuer di la jox tuyaaba ca fa nga tëdd ca barsax mu ne bokk na ci wala dul saalihun yad'u lahu njaboot boo xamante ne da nga leen tënkul ci yàlla dégle ñu tënku ci fan la koo faatoo ñoom ñaan gi lay ñaan yi dalee fekk fi nga xamante ni fa nga dëgg te barsax mu bokk na ci mbokk yi lii tax njaboot bi mën a tënku ci yar bi nga xamante ni moom lañu war a yar xale yi mu tënku ci shariatul islamiya ba ca jiitu mooy ibtiyaaru zawja bi saaliha nga tànnal sa njaboot bii nga xamante ni ñoom la la yàlla nar a dénk yaay bu baax ndax dafa bokk ci ñi njaboot yi di njëkk a jël ci ay leçon ci lu mu war a jëfe ba ci kàddu yi mu war a njëkk a wax dafa bokk ca kam koy jële nga ko gën a jege te ka ko gën a jege ci ñaari waajuram moom mooy seeni yaay moo tax alayhi salaatu wasalaam dafa wax bi mu ne ni tunkiixul mar'a bi arba soxna da buñ koy takk ci ñeent yi mooy tax critères yi ngay bàyyi xel pour tànn sax benn bi neen li naa liha mun nga tànn soxna ngir mun nga fa am alal mu ni wala li xasabiha wala dafa mbokk te biir ba mbokk noo xamante ni bu baax lañ ñu mën dundal leen askan bu baax ñu mën a jaamu yàlla di nangoo sëy mu ni ñetteel bi wa jamaaliha taaram ba amaana léeg-léeg di nga am sax ay bopp yu ubbu nga xool ko sa bopp bu boobu nag mën a daj ngir jamaal bi nga gis ci moom taar mu ni nag waaye ñeenteel bi mooy li ci ëpp solo mooy nga tànn ko ko tànn boo xam ko am diine la mu ne boo tànnul nag ki nga xamante ni dafa am diine nga tànn ca soxna ngir taar wa wala ngir alal wa wala ngir fa mu bokk koo xamante ni tànn ko waaye amul diine nee na dóor nga sa loxo ci ëpp na bu boobaa kon dafa bokk ci ni ñuy tàggatee li ñuy yaree xale bi la ca jiitu mooy nga tànn ko yaay bu baax te nii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee ni ci li ñuy tànn soxna mu bokk ci ba tey sabab yi tax suñu njaboot bi ñu mën leen a teg ci yoon bi nga xamante ni mooy yoon bu yàlla gërëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay jàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom musul a bàyyi benn détail ci yar yar dafa sew ba tax na xadis bi yonent bi alayhi salaam dafa wax ni murru awlaadakum bi salaati wa hum abnaau sab'a sinin seen njaboot bi na ngeen leen digal julli fekk boobu ñu ngi am sept ans sa njaboot bul ni xale la ba bu ko yëpp loolu nga ne du ma ko yóbbu ci jàkk bul ni xale la ba tax du ma ko yee muy jug julli day nelaw bàyyi leen ko xale day julli xale la bàyyi leen ko day fay nelaw nee na nan ko tàmbalee tàggat ci di ko yee muy julli di ko bàyyiloo pomm muy julli ci ba muy am juróom-ñaari at yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su demee ba xale ba am fukki at ci julliwul nee na na nga ko dóor na nga ko dóor ngir mu dem defi di jaamu yàlla ba nga xamante ni mooy li koy jokkale borom muy nag ci dix ans yooyu mu wax yemul sax ci nga koy dóor ngir mu dem jaamu yàlla waaye na nga dàqale góor ñi ak jigéen ñi ñu bokk fa ñu tëdd na nga ber góor ñi ñu nekk ca néegu góor ñi jigéen ñi nga pare la ñu nekk ci nit ñi loolu dafa bokk ci tarbiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ba tey alayhi salaatu wasalaam ci yàgg ñu doon yàgg ñi mu nekkaloon ci saxaaba yi radiallahu anhum kii di Omar ibnu Abi Salama radiallahu anhuma nee na moom dafa yekkoon dafa nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir néegam maanaam ci biir ëtt bi ñuy añ wala ñuy lekk mën nañ wax ñuy lekk waaye mu moom loxam bi fu nekk la doon dem ci ndab li xale la waaye xàmmee na muy loxam la di dem fu ne ci ndab li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yaa gulam yow gone mi sambillah na nga tudd yàlla maanaam kon si yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu njëkk a seet ci xale bi mooy ba muy lekk waxul bismillah mu ni ko sambillah booy lekk da ngay njëkk a tudd yàlla ba pare mu ni ko wakul bi yamin te booy lekk na nga lekk sa loxo nday joor kon lam doon lekke mooy càmmoñe ba booy lekk mu ni wakul bi ma yoli te booy lekk tamit sa loxo bi bu mu jéggi digg ndax bi bul def fu sa bët bi nekk ca la nga soxla rek dana jëri jiko waaye na nga tax lekk ci lii rek sa kanam nga gis moo koy alayhi salaatu wasalaam ci jàngale ci li nga xamante ni tey boo ko doon wet di ba suñu jamono tey da ngay gis magum jëmm boo xamante ne la muy lekkee càmmoñam ndax loolu la habitué ci loolu lañ ko yaree moom te suñu yaay Aïcha radiyallahu anha waxoon na ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam da bokkoon na ci li ko yéem ci yonent bi mooy ndeyjoor nee na lépp lu mu daan def rek ndeyjoor la kanam defee bu daan lekk loxo ndeyjoor lay lekk bu daan naan loxo nday joor lay naane su daan joxe loxo nday joor lay joxe bu daan nangu loxo nday joor lay nangu mu ni wa fii sha'nihi kullihi mooy lépp daal daanaka lépp lu naan def nday joor la karan defe mbokk yi lii di yar ki nga xamante ni moom lañ ci war a roy jëkk mooy ki nga xam ne moom la yàlla wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu yonente bi alayhi salatu wassalaam loolu la Omar ibn Abi Salama ne depuis jour boobu ma leen tudd alayhi salatu wasalam jàngale ni ñuy teggi ni ñuy lekkee ci ndab nee na keroog laa gëj a lekkee lu dul sama ndey joor te bala may lekk dina wax bismillah te su ma lekkee ba pare dinaa sant yàlla te du ma lekk mukk lu dul li nekk ci sama kanam mbokk yi yonente bi alayhi salatu wasalam dafa bokk sax ci ñaan yi nga xamante ni joxe na ko ci nit ki balaa muy lekk ñaan mu ne bala ngay lekk waxal ni allahuma barik lana fii ma razaqtana waqina adaban naar ci yenn riwaay nga xool ni ñaan gi lim ko tënke mooy yow yàlla yàlla na nga barkeelal ñam wi nga ma xiibal mbokk yi bari na bool bu ñuy teg ci ci lekkukaay njaboot bi lekk njaboot bu sakkan sax macha allah ñëpp lekk ba suur ba lem bi des naka te la ko waral mooy borom kër gi lan ko fàggoo moo nekkam lu dagan ñun bu ne lekk ci ba lekk bi des ndax la ca nekk mooy barke allahuma barik lana fii ma razaqtana ci li nga xamante ni yàlla ñaa ma ko wërsëgale kenn jox ma ko dul yow kon du mu ci tudd kenn bala may lekk dul yow yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def moom bokk ci way jullit ginnaaw bi nga lekk ba pare alayhi salaatu wasalaam jàngalaat la ni la boo lekk ba pare nag na nga delloo njukkal bi nga xamante ni ceeb bii jën bii wala yëpp ñu dajale ak fu mu dugg yëpp fu mu bàyyeeku yëpp amul kenn doon fàttali ku dul yàlla moo la ko wërsëgal mu njëkk ba bu sa kër nga lekk bu sa biir fees ma nan ko sant alhamdulilahi alladi ataamani maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne moom ma leer wa safaani moom ma naan dal wa jaalani min almuslimin mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo bàyyi ko dara dara dara ci yar ngir responsabilité bi nga xamante ni ëllëg yàlla dina koy laaj ñi nga xamante ni ñoo nekkoon yarkat bi aqulu ma tasmaxoon wastaxfirullah li wa lakum wa lisaari muslimin min zanbi fastaxfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi mu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu xutba yi ñaareel ba tey ci yar bi nga xamante ni war nañ ko yar ñii di njaboot dafa bokk ci li nga xamante ni jamono ji tey yàq na suñu éducation yi nga xamante ni ñu ngi ko war a indi suñuy doom te ñu bari ci ñun ñu ngi mbubboo sax ni man de samay doom bu ñu génn kër samay doom bu ñu dem fenn bu ñu taxawal ci mbedd fekk na sa yow doom yooyu ngay wax li ñu ci biir kër bu ñu dem fenn ñoom ci mbedd mi la ñuy yem ci mbedd mi la ñuy mën li ko waral mooy jumtukaayu xarale yi nga xamante ni tey jii noonu bi ñoom dina ko bokk jege ñu lool sax waaye mu nekk baax ñaari boor mu jumtukaay yoo xamante ni mën koo jëfandikoo ngir am ci xam-xam bu bari mu jariñ nga jariñ umma bi yëpp waaye mu nekk jumtukaay boo xamante ni mën na laa yàqal ba yàqal xeet lëm muy internet bari waa na ko ni sama doom dafay teel a tëdd ah kay dafay teel a fatam wante mu ngi ci mbedd bi ndax lii nga xamante ni mooy Facebook mbedd la mbokk yi loo ci xasa sànni moo ma toog lii di TikTok mbedd la boo loo ci xasa sànni loo fa loo fa bëgg a gis mën nga dem ak yow topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne mujj jamono di ngeen dem ba naan ba lii di njaaloo lii di mooy yàlla da ngay dem ba naan puusal ma jàll man boo mënee ci gëmm sax di dox waaye naan puusal ma jàll mooy nga jël léegi alquran lu tey di ko sa téléphone di xool di jàng alquran ni muy dem jékki-jékki publicité boo xamante ni leneen lay génnee ci wàllum sufaan looy def da ngay puus mu jàng mu continuer sax jàng alquran bu dee loolu déglu sax loo xamante ni la amal mu njëriñ njaay ni la da ngay déglu ba si yàgg publicité jàng lan lay wane ay gàncax ak yu saajale sax nga puus mu jàng kon jamono jooju kon jamono ji mooy jamono joo xamante ni jamono internet la am na ay ijaabiyaat comme am na ay salbiyaat yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa bokk ci jàngale yi nga xamante ni da ko jàngale nit mu mujjee suñu njaboot bi ci njëriñ bi yi leen di war a mën a fëkk yóbbu leen ci yeneen yoon mooy tànnal bi nga war a tànnal sa njaboot ñi nga xamante ni ñoom la war a àndal bari waa na ñoo xamante ni tey lu bëri ñu dugg jëlee woon ko seen wayjur bu góor jëlee woon ko seen wayjur wayjur bu jigéen jëlee woon ko ci seen benn membre de famille boo xamante ni bu leen jàngale fañ ko jële moom mooy ci internet lañ ko jële dañoo dema dema dema dem ba da ngay xool kii nga xamante ni ñu ko tuddee Mustapha wala ñu tuddee ko Xaadim turi seen yooyu boo ko xoolee mu lay jox ay rappeur américain ay fecckat ay lam ay joueur ay star mbokk yi est-ce que ñu ngi bàyyi xel sax ci loolu ñuy wax star ak najmu étoile li mu baaxoo mooy fabriqué di leeral na kooku de bu dee borom xam-xam la kooku de baax naa topp star ñi ñu ko indil tuddee ko star mooy yow say objectif yi nga am ci sa njaboot ak yow sa objectif sa wàllu bopp mu ne sa kanam nga xam da nga war na jàkk jëm ci sa objectif ñu lay xool la star boo xamante ni ci loolu lañ lay tuddee jëm teel na ngay def dangay dem a dem a dem a dem a dem ba iqtaraba linnaasi saa'atuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun tax na di dox a dox ba ñu ca ndox ci am tam ndax mooy yi nga xamante ni ñu ngi koy roy yi nga xamante ni amul lenn lu ñu war a jël ci ñoom ci lu war a roy moo xam footballeur moo xam kàcckat la moo xam lu mu war a doon mbokk yi dal nañu bis ndongo loo xamante ne daanaka xaw tuut mu jege mokkal alquran dem na tabaski ba war a ñëwaat weer weer mbokk yi weer weer dong la def ci ci kër gi war a dellusiwaat ñëw daw ñëw si daara ñi dafa yoon daw nga woo ko doo ko fitnaan da nga koy enquête da ngeen xam kii exactement li ko tax a daw wallaahi li mu wax mooy seen petit jàll moo toog na ci final mooy caaxaan yooyu fi amoon say jamono xale yi ñu jënd leen seen juróom ci lañ koy loogi man nee na moo tolloon ci final final bi la doon bañ mu dàq mu raw ko moo tax mu daw alquran bi gis daan di ci xale boo tëj fukki weer ak benn ba muy bëgg a mokkal alquran noonu la ñuy dalaate noonu nga dem ci xale boo xam daanaka xaw tuut mu tëral teere mu nekk ci yoo xamante ni xel ma dem na yow jafe-jafe yooyu mooy kii la moo war yóbbu xelam kii lan moo war a nekk ci xelam wallaahi doo ko mën a xam ndaxte dafa dem jot ku njëkk mbedd mi jot ku njëkk leneen loo xamante ni yàq na li muy koy jural xalaatal ci moom nan man ci moom ba mu jaaral ci beneen bi nga xam ne mooy yóbbu zaar ba mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim ñu jàngal yàlla wax ko ci alquran karim mooy nañu fegal suñu bopp safar fegal ko suñu njaboot mooy amul kenn koo xam ne du daal tënk ku war a bàyyi wala def démission la wala def retraite sa njaboot ndax ëllëg yow maa qiyaamati moom moo ne yow dama daa julli jàkk di dem ci fu ne ci fu baax di wax lu baax di saraxe di dimbale nit ñi da tegawul sa doom ci njaboot bi ci yoonu jub ëllëg da nga dara dem ba yàlla àtte la ba nga war a dem ñu di wax moom innahum mas'uluun ñu nañ leen taxawal ndax bu njabootam bi nee nañ ñoom ba mu daan def lu baax loolu daaw nañ ci xirtal yàlla yàlla sàmmal seen njaboot bi teg leen ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu jub ñu naan mbokk yi dafa bokk ci li borom kër gi di war a sax ci njabootam ci di ko def badalan ak di ko muul léeg-léeg nga xale boo xamante ni daf laa xaw a jaaxal nga sa njaboot la ngay def ci moom nga la koy jëm yow li daal di koy wax wax du ñaaw ba ñaanal ko wallahi ñaan ko mën na baagal ndax loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng ridallahi fi ridal walidin yàlla bu lay gërëm day dugg say waajur yow ñaan bi nga war a ñaanal sa doom ci mu jaar ci yoon wala sa baax yow nekkul yaay jubalaate ki yàlla moo ko def ni mu def nii yonente bi alayhi salatu wasalam la yàlla joxoon ni ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha jub yàlla moom mooy jël ba neex mu def si yow jub mën na jël kii def ko mu nekk soir mel melokaan bu yéeme jékki-jékki yàlla daal na koy wëlbati mu doon ak ku say yàlla moom mooy wëlbati yow nag sa njaboot nga gis ko mu nekk ci benn yoon boo xam ne bokk la yoon bi nga gërëm yoon bi yàlla wax nga def ak moo ci góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu nee na na nga bàyyi ba guddi nga jóg ki caw fi lay nga ñaanal sa njaboot gi yow yàlla sama njaboot gii di jiw yàlla na nga ko génn ci yëmu nekk teg ko ci yoon bi nga xam ne moo yoonu jub loolu yàlla mën na la cee wallu ba jël sa njaboot gi def ko ci melokaan boo xamante ne mooy melokaan bi ñëpp gërëm ba mbokk ñaan dafa bokk ci lii booy jóg war gunge njabootam ngir yàlla def leen ñàkk njaboot yu texe ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين